def nañ jongante bu bu bu am solo contre renaissance jongante bi nag yàlla may ñu ndam li waaye xale yi day téyewoon nañ match bi ak seen loxo boo war ci mën a am ndam ndaxte ni ñuy tàmbalee vraiment baax na waaye jotuñu def différence bi et loolu nag mooy euh, li nga xam ne moo ñu xaw a naqari euh, adversaire bi nag loolu la wut si woon euh, maanaam am benn poñam bu fekkee ne mënul gagné loolu réussir nako ko nak mu melni rek euh kené ñun euh def li tuab di wax arrêter l'hémorragie manam bo amé gañ gañ dér di turu nga wut ben buum tak ko pour que dér di arrêter manam jël yoy ñu doon am ci semaine yi passé yoy lañ doon arrêter pour mëna am ndam sigi ndam bi amuñu ko waaye sedo séddoo séddoo bi tamit bonul dinañu permettre ñu mëna défarat bu baax Euh, li ci suñu kanam ndaxte match yi bëri na te it nañu mën a permettre ñu mën a régler équipe bu baax a baax ah, dëgg la nag suñu sañoon gagné ndaxte euh, booy recevoir à domicile da nga war di gagné waaye nag euh, ñu ngi ciy sant suñu borom mm, match nul bi bonul ci ñun dinañu permettre ñu maanaam arrêté daal spirale di defet bi nga xam ne moo ñu toppoon. ñoom dañu créé ay problème ci ci seen njoolaayu joueur. parce que joueurs joueurs yi ñoo sutoon sunu sunu ak sunu sunu défense bi yëpp moo tax ñoom dañuy jouer dañuy jouer jouer bu gudd ci seen avançant centre avant bi di dévier ballon yi mais après jot nañ régler problème Bobu, parce que bon seetee ci match bi yëpp quand même ñun euh, jot nañ euh, euh, jouer sunu jeu par ay attaques ni ñu wax ci ay attaques placées ak attaques yu yu gaaw pour mun surprendre adversaire bi d' ailleurs ay occasion yo xam ne suñu avançant yi quand même team nañ team nañ góol bi deux fois ou trois fois jotuñu ko concrétiser boo seetee ñun euh, euh, ci match ñu joué yëpp dal euh, loolu moo ñu xaw tardel ci ci victoire parce que suñu problème boobu la ñu am ci nit boo xam ne mooy mooy action yi di dugal bal yi concentration boobu moo manqué ci joueurs yi mais ñu ciy liggéey Inch'Allah, peut-être d'ici d'ici temps peut-être d'ici am ñeneen ñeneen ñeneen joueurs yoo xam ne euh, mission